wax naa ko fii dégg ngeen ko parax parax ak yooyu moom bu ngeen koy def ngeen yemale ko ci naari libaande yi waaye Sonko moom du ngeen ko luxus d'accord parce que affaire bi bu ko bu ngeen ko nee piip ñëpp a koy yëg ko nangu loolu na leer d'accord Pape waaw euh, non mais yow sa question bi nga posé sànq euh, lu mu tudd maam Birame wàcc laa njëkk tontu parce que yaakaar naa ne euh, ay papa ak ay président yooyu yëpp am na lu ko gën a fort muy yonent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mhm. am nañu ko caricaturé suñu président de la république dem ba foofu ni au nom de la liberté d'expression donc ku mën a accepter dem di taxaw foo xamante ne dañ fa saaga yonent bi nga ni nit ñi am nañu sañ-sañu wax yenn kàdd yi bu ñu jëlee kàddu même boo jàppee lu ñaaw na war ko mën a accepter donc je crois que ni war nañu mën a euh, bañ a a am ay yenn yenn yenn tolérance à géométrie variable parce que boo ñëwee da nga accepter dem di participer ci benn manifestation boo xamante ni dañu ni au nom de la liberté et de la dignité humaine la mhm. te ñooñu ñi ngi saaga yonent bi rasulullah sallallahu ay milliards nit topp ci ginnaaw ñooñu euh, ginnaaw yonent bi euh, boo accepter loolu war nga mën a accepter quand ñu lay saaga parce que yaa ni liberté d'expression ak dignité ñu ñëwee ci moom moo dox ci diggante Mame Mbaye que Euh, wax sax waxu euh, lu mu tudd wax waxu appel ak beneen procès bu ñu war a defaat euh, dafa irresponsable pourquoi parce que procès bi ñoom juge yi bokkoon na ci seen motivation li taxoon ñu ne dañ koy amal coûte que coûte parce que dañ ñëwoon dafay coûter état du Sénégal énormément d'argent parce que bu procès waree am dañuy mobiliser force de l'ordre yi dañuy dañuy dañuy dañuy et aussi am na ay sénégalais yoo xamante ni dañ leen di dañuy obligé renvoyer seen ay audience parce que tout simplement pour des raisons de sécurité dañuy jël ñi nga xamante ne dañu leen jàpp ay privilégiés ñun dañ leen di àtte circonstances yooyu noonu bu taxawee ba yow nga ni mënatoo renvoyer benn procès dañuy amal procès bi coûte que coûte. Mhm. procès boobu coûté autant d' argent. la dernière fois bañ koy bañ bañ leen di mujj àtte rek euh, jeudi bii passé économie sénégalaise wala booy xool ndakaaru kenn demul kenn dikkul loolu tey nga ne da koy bisaat bëggoo jàmm pour réew mi parce que boo xoolee écoles yi ubbiwuñu commerce yi euh, ba na ay boutiques yu wàcc seen rideau station yi liggéeyuñu banques yi liggéeyuñu. yow kay neel couvre-feu lañ nekkoon rek. voilà ñëpp tey jii taxaw économie bi. nekk sama kër ak fii. Mhm. temps normal une heure vingt minutes une ma jóge sama kër ñëw wal fajiri. Mhm. bi ma jógee wal fajiri jëm sama kër dix minutes laa ko daw te dix huit ci bëccëg dix huit la woon dix huit heures. dix minutes dabu ñetti oto ñetti oto dabuñu ma. voilà loolu déjà bu nekkee ci mooy couvre-feu ci réew boo xamante ni déjà sa koom-koom demewul noonu nga bëgg dundaat loolu yaakaar naa ni irresponsabilité mun koo weesu hmm. encore que aussi même ay waxu deux cent millions prétexte yu ñu utiliser cest à gis nga euh, bu nekkee wàllum diffamation dañuy naan sa honneur nañu laal te ku ñu laal honneur am wala war na tal leen lu dul réparation hmm. euh, booy xool kilifa yi nga xamante ni wala entre entre en tout cas ñi nga xamante ni ay borom nombre bu ñu demee ci diffamation li ñuy réclamer mooy le franc symbolique dañuy wane déjà que ni ñoom xaalis bi taxu ñu leen taxu leen jug comme kii dafa yàq sama image ci public bi nañu xamal askan bi que kii li muy wax nii amul te encore que diffamation ça veut pas dire que li ñuy wax amul dañuy def amalgame boobu parce que boo ñu dégg ñu naan way ñu ngi may setal ak duñ ma setal exemple bu gën a terre à mooy tey bi de mën nga fekk Pape Sané di ma jox xaalis mm-hmm. di ma corrompre ni ma boo demee ci plateau bi attaqué Bara Ndiaye mm-hmm. nga fekkee ko dégg ko mm-hmm. ma attaqué Bara Ndiaye nga génn def live ni Pape Makhtar de li tax mu attaqué Bara Ndiaye Pape moo ko jox xaalis mhm. li ngay wax dëgg la man xam naa ni dëgg la Pape Sané xam na ne dëgg la mhm. mais bu ma la yóbbee si yoon dañ lay daan parce que li ngay wax mënoo ko prouver mhm. wax loo mënul prouver la loolu kase nañuy wax diffamation ça n'a rien à voir ak li muy wax dëgg la wala du dëgg day tegu ci ay faits yu nit mën a gis mais problème bi mooy problème mu preuve bi te aussi bu nekkee da nga da nga dama enregistré dañ lay naan preuve illicite donc du preuve boobu moom moo mën a prouver li nga xamante ni moom mooy euh, euh, kaddu yi nga xamante ni euh, wala wala transaction bi nga xamante ni sama diggante Pape Sané mm. donc faut dire que ni déjà man je pense que bu nekkoon ñoom seen honneur moom moo leen taxoon a jóg du ñu wax waxu ay réparation ak ay deux cent et quelques millions li ñuy soxla mooy jéem a fexe ba wàññi li nga xamante ne mooy dooleem la indil ko ay jafe-jafe ci wàllum finance parce que euh, lu mu tudd euh, Ousmane Sonko du opposant bu am xaalis mm-hmm. bu ñu lay naan dañ lay jël amande bu toll noonu teg la ko te sachant que amende boobu bu nekkee def nañ jugement définitif amende boobu noonu boo ko fayul doo jot sa crise fiscale boo jot sa crise fiscale boo demee déposer candidature dañ koy neena na donc dafay mel ni Karim Wade tey bu ñu ni woon dafay ñëw Sénégal même bu retrouver li nga xamante c'est droit physique la euh, civique la bu fayul 138 milliards oui man xam nga 200 millions moom xalaat naa xalaat xaw ma fu ma koy jëlee fi ne kay fan yi ku ma tudd ma def ma doon rek plainte ba xam comme amende 200 millions mën naa ko am ci ci kese. non. bi kay dana xat moom xam ah, ku ma tudd rek ma yóbbu ba xam ne. waaw adata business la di. pour 200 millions. 200 millions saa waay. en tout cas dañ maa diffamé 200 millions lañ may jar na kay ku la tudd rek nga dem. <laughs> ba noppi nga xeeb ko mais mais pour euh, euh, moom moo ko lal. Euh, te Macky Sall bon je je sais que ni xam na ni mënul empêcher euh, Ousmane Sonko mu doon candidat li ñu jéem naan dañuy jéem a fexe ba def condamnation définitive ba moom peut-être ñu euh, empêcher ko mu doon candidat loolu ay waxi caaxaan lenn ñuy jéem mooy fexe ba gëmloo Sénégalais yi que ni Macky Sall am na pouvoir u tere Ousmane Sonko mu doon candidat te pouvoir boobu amu ko il faut moom mu xam ko dañu koy conseiller xam ko ak ñi nga xamante ne aussi dañu nekk ci logique boobu ñu xam ko amul benn pouvoir bu mu mën a utiliser wala benn yoon bu mu mën a utiliser pour tere Ousmane Sonko doon candidat na leer si boppam mu leer aussi ci sénégalais yi parce que bu ñu demee ba ñun ñu dugal ko suñu xel ba dugal ko aussi ci xelu yenn sénégalais yi dinañ ko def benn genre euh, euh, benn benn benn genre probabilité dinañ ko jéem a mooy mooy appel bi non euh, def euh, comme rek def condamnation définitive boo xamante ni. Euh, dañ koy dañ koy tere wala def ko trois mois kii ak yeneen yeneen pexe yoo. xamante ni dañ koy tere doon candidat loolu je crois que ñun ñoo ko war a ñoo ko war a njëkk refuser parce que aussi je pense que li ñuy wax ci ay procès de diffamation bu ñu doon def historique bi je crois que amul benn boo xamante ni du pour juste wax ni kii. def na loo xamante ni peut-être yoon mayew ko parce que yoon am na aussi mooy li ñuy wax limitu limitu droit la quoi droit dafa am nu mu tëddee noo xamante ni parfois dafay dafay dafay kii parce que déjà bu ñu lay wax ay wax prescription rek euh, am na boo sàccee am na benn diir boo xamante ne sàcc bi ku la wax na nga sàcc sax da lay tooñ te pourtant sàcc nga parce que am na c'est-à-dire yoon du souvent lay ànd ak éthique mm-hmm. yooyu yëpp aussi il faut ñu jël ko en compte je crois vraiment voilà euh, je crois que euh, tey Sonko du Macky Sall moom moo koy tere candidat doon candidat peut-être moom mu xëy suba ni bëggatul doon candidat du justice moom moo koy tere doon du kenn moom moo koy texe doon loolu ci volonté am lay dépendre ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko tab pour def ko candidat loolu dafa war a leer ci sénégalais c'est pas parce que dinañ nar a utiliser ay nit di leen naan dem leen ci ay procès ak yeneen ak yeneen nag maa ngi gis aussi waa APR di jël ay photo euh, lu mu tudd juge bi di partager naan way xaw ma lan ak lan ak lan euh, moom aussi ci Pastef la bokk ak yooyu gis nga man je pense que ni bu nekkoon waa Pastef ñoom ñoo def loolu ñoom union des magistrats du Sénégal dañuy génne ko dal seen kaw nii ñi ngi menacé ay juges ñu ngi leen di tere def seen liggéey te Sénégal kese ngay gis ñu ni nit ki dafa far fii wala sympathisant kii la muy poser problème yéen lañ koy wax sànq ci Baara Ndiaye di naan sympathisant Pastef la parce que li muy wax dafa dafa dafa jege waa Pastef te am na ñoo xamante dañ ko koy reproché mais demal France bi ñu jàppee une grande démocratie demal États-Unis bi ñu jàppee une grande démocratie mais dafa am ñoo xamante ne ay pro nañu journaliste bu mag ñu xam ni kii pro républicain la waa euh, républicain bu ñu def seen ay meeting day ñëw taxaw terewul day def liggéeyam correctement te daf ko mës a France aussi am na ñoo xamante ne gauche bokk am na ñoo xamante droite nañ bokk kenn du leen ko mës a reproché et pourquoi tey au Sénégal boo waxee ñu naan kii opposant la kii lii la kii lii la est li muy wax objectif na ou pas juge bi nga xamante ne ko ni dans l'exercice de ses fonctions n'est soumis qu'à deful fonction mais Pape Makhtar Diallo nit la ni am na sañ-sañu bu gisee ni Ousmane Sonko da koo da ko da koo neex wala ànd nag moom ay principe ay conviction mais mu partagé ko am na sañ-sañu ànd ak Mame Mbaye Niang dans l'exercice de ses fonctions nag il n'est soumis qu'à l'autorité de la loi et à elle seule bu accepté Macky euh, influencé ko mooy wàcc na yoon bu accepté Sonko influencé ko wala appartenance am wala keneen ak keneen mais kooku matul juge donc je crois vraiment il faut ñu def preuve de discernement donc damay ñëwaat ak Cheikh Bara ci beneen question par rapport ak li ñu doon wax léegi ci ñaari avocat yu jóge biti réew mu nekk nag loo xam ne ni dossier bu ñu internationalisé la je crois maanaam jéggi na suñu ay frontières est-ce que loolu avantage Ousmane Sonko la mën a nekk Cheikh Bara waaw